أسا وإني يوم سوء أو جاهي مبتقيا أو المجيب داي واتكي إلي ما من درل خمسني مسني أتارى للمتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع درنا بجاي خير العالمين الأكرم ثم بيمني رمضان لسمي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 di len dokkel ci bis bu tedd bi nga xamanteni moy guddu gudd rasulullah alayhi salatu wassalam bo leen xole jota bi nak da ngeen xamni ñu tedd ño tew bok ci askan wu tedd askan wo xamni yag na am ngeerum Serigne Touba muy wat askan moy njabotuk Serigne Mor jatti kep ko xamni njabot Serigne Mor jatti la tew na ci bi nga xamni fi lañuy magale màggale guddig rasulullah alayhi salatu wassalam ñu daara amal nak waxtaan wo xamni amna solo lol solo bi ñong ko teunk ci njabootuk sëriñ Modou Diouf Diatty gépp tënku ci genn kàddu nekk benn waaye nag waxtaan wi solo yi mbooleem njaboot sëriñ Modou Diouf Diatty ak ci kër yi danañ ci yëkkati seen i kàddu ngir soññee ko taalibe yi taalibe yi it buñ ko déggee seen i jëwriñ ñoo leen koy jottali waaye taalibe yi jëfe ko kon loolu mooy tënk bi nga xam ne moom la ñuy tënk ci njaboot gi xam naa dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy suñu sëriñ mooy suñu kilifa ñu ñëpp ci jotaa bi mooy sëriñ Mor Diouf Diatty bis ni ki tey mooy sëriñ Thierno Diouf moom soxna Walimata serigne Ceerno lañuy jox kàddu gi mu wax ci turu serigne moju jaddi ubi jotay bi ñaanal taalibe yi bu ko defé nak mbooleem ñi nga xamni war nañu jël kàddu bu boobaa ku agsi rek ñu jox la kàddu gi ngir nga jotali ngir soññ talibé yi soññ njabar serigne moju jaddi jërë ngeen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nu ngi len di nuyu di len sant di len gërem di len wax ni lii nga xam ne moo ni fi dajale de ku ci góorgóorlu woon war ngaa góorgóorlu ku ci góorgóorlu woon it war nga ci gën a góorgóorlu ndax bis bu tedd bi di juddug yonant bi sallallahu taala alayhi wa sallam nu daje fi di waxtaane ci askanu sëriñ Modou Diatty nga xam ne sëriñ Modou Diatty mooy sëriñ Touba sëriñ Touba mooy sëriñ Modou Diatty di sant yalla bu baax nak di sant serigne Muntaxa di ñaanal ci yalla yalla yagal ko fi lol di wax ni fi nu tok de mom len fi musuno rero ak mom ci benn yoon rero ak mom ci ben yoon lu ñuy def ndigal len ci and bal no def dara den koy waxtaan ak mom muy guddii muy beccëk di ko sant ci nangul googu nu mu sangul ngir gemi serigne mour Dia mi taxnu nu fi ba xamnu nu ni nun mom rek lañuy ñuy liggéeyal moom sëñ Muntaxa ci ndigalu serigne mour Dia ginnaaw bi loolu nuy sant mbooloo mi yëpp di leen wax ni leen lii de sant naa ko bu baax ndax moom rek laa dala ñaan bi ma fi ñëweeg léegi ànd nekk benn ki war a jiitu jiitu ki ci war a topp topp ci wax ji sax dañ ma ko wax rek waaye kon man sax du ma wax sëñ Modou Mbène mooy wax ndax man duma maye bop rucci aw man ñaan la fété wo seen mbaax rek la ngeen ne ma foog nga wax waye wax gi sax gënalu ma sëñ mbé nak ko war na wax waye nak dina ko jox mu yaatal mom luma wara wax xam ko lu ma def xam ko lu ma jëf xam ko dama leen di soñi rek di leen daggé ci and gi nu and rawati nak askanu njufen bëgg ñëpp ni ñu nekkon ben ñu gëna nekk ben nu ñu andal ñu gën ko pas-pas bu am nu jog songandoo ko do ko li nu bëgg lépp deenu ko am te yalla rek tax ak serigne Mor jatti na ngeen lu nak bu baax ndax ay mag bu ñu dajee ba waxtaan seen waxtaan ba fas seen fas ngalawaay nag ku gor lu ci leen waxan kenn ko xamni dem nga ba dara wax leneen sax na xel sa xel daj yew bi nu ne man kat lima ma doon bëgg wax bayina ko ndax yew bi nu togon wax ko te ay magi jëm di magi l'islam ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen encouragé yéen ñëpp nag di wax ne muy gone muy mag muy ndaw rawatina ahlu Njuufeen li ma leen wax rek dama leen wax leen nun ñëpp benn lañu ku mag ku ndaw ak ñëpp a yem ah boo nee juuf rek juuf la mu leneen nekkatu fa e kon nag ci biir loolu ginnaaw bi it ñu sant taalube yi taalube bu nekk na topp ca kamu topp la ma la wax nga def ko lam la jëfloo nga jëf ko lamu la bàyyiloo nga bàyyi ko nu ànd nun ñëpp nekk benn sëriñ si bu ñu nekkee benn taalibe yi nekk benn lu nu wuti am ko waaye bu ñu tasaatoo du ñu am dara kon nan góorgóorlu bu baax te yàlla rek tax ak sëriñ Touba ak sëriñ Modou Diatty jërë ngeen jëf. waaw ah, jërëjëf sëriñ Thierno Diouf xalifab sëriñ Modou Diatty mbokk taalibe yi yéen a ko déggee ni mu ko waxee jëfe ndigal ak bàyyi tere moom rek la sëriñ bi soññee dañuy jox kàddu ki nga xam ni mooy xalifab sëriñ Daaru Seynabu waaye mooy jëwrin ci kër Serigne Modou jatti moy Serigne Modou mbenn Serigne Modou mbenn ibnu Soxna mbenn domi Soxna mbenn bakke Serigne Modou mbenn domi Serigne daru seynabu waye khalifu Serigne daru seynabu nga xamni moy mooy jëwriñ ci kër Serigne Modou jatti mom lañuy jox mbolo mi nuyu na len nuyo bi nga xamni l'islam moko waral ci digeenti julit ak moromum julitam warahmatullahi wabarakatuh wa mu andando mom l'islam bëgg boole seen bop def ko muy ben tayit ki tax ñu di ko def jar na ci nun ndax fi ci soowu jant mom señ Mor Diouf jatee fi njëkk bayiko fekk borom Touba ba ngeene li fi ne yëpp li wolof di wax bari na ku lek aw jën te xamoo mol bu ko japp loolu mooy li nga xam ne moo ci am bu dul woon jëmmam jëkkat sawu jant du mel nii du leer nii du naati nii du xéewalee nii itam kon suñ dee dem di dem di dem ba ay sëtaatam xalaat xalaat ju rafet wutante ñoom gisante nga xam ne ñoom sunuy doom lañu ñu àndandoo nekk benn fas yéenee liggéeyal maam yi seeni baay kon seeni baay itam dañoo fas yéenee takku àndandoo ndax ñu mën a dooleel ñoo ñi nga xam ni yëkkati nañ kàddu gu rafet te mu ànd ak pas-pas ak yéene itam nag kon ma bëgg nun ñepp nu xamni ay jëwriñ lañu ci kër señ Mor Diouf Diatty kenn ku nekk nga tak sag laxasaay ña top ci yow mo xam kenn la mo xam ñaar la mo xam kenn sax top ci yow nga tak sag laxasaay rek ngir yalla ak jëmm señ Mor Diouf bu dé garab gu nuy gor ngir señ Mor Diouf kenn ku ne na fas yéenee gën a ñaw aw semmiñ moroomam man di ñi ma àndal fas naa yéene bu dee lu ñuy laaj maa leen di njëkk joxe bu dee ñax mu ñuy baylu fee maa leen di gën a ñaw ëllër incha allah bu dee garab gu ñuy dagg maa leen di gën a ñaw aw semmiñ tey defe naa ne foofu ma nekk daa ko tudd ci sa làmmiñ rek waaye ñu baree baree bari foofu lañ ne mën naa ni ñëpp sax foofu lañ ne kon dong yi ñu xam ni sëñ Diouf jetti mom lañu am demu mom lañu am tay bu alegir moom la am ndax bis bi suñu borom di wax yow man adhu kullu unasin bi imamihim, ci ginnaaw seigne mour Diouf jetti lañu yoyo kon koku waru ñuko sagane waru ñuko tiaxane defu leen ko sax waye wolof da wax ni paaka lu mu ñaw ñaw bala nga ca dag daas ko tay itam bubu boko de sol bam tilim sax war nga dem jënd fe ab sabu wutum ndox foot ko bam set ko do salat kon fofu lan tollon te ci mbirum seigne Mor Diouf jetti bëgg nun ñëpp nu takkat sunuy la te ta ni ay liggéeye ngi fi yu wër tayit ben yen bu ci 10 njabootuk seigne Mor Diouf jetti amut luñu songu de dégg ngeen li Moussa wax ci kër ge ay ñaar fukk million ak nangam nangam yo xamni yi liñ ko liggéey lepp matul at mba bu matayati la ca bari wut lolu kon xewal la gun señ Mor Diouf defal nu delo ko ko kon nu jema takkat la laxasaay te fedd li pas pass yi jëm ci liggéeyal ko rek ndax kat fofi dem ñi ngi def lu melni Andri, defar daru, mohti ña ko fay wax te daru ñoy nun noy ñom bo demé to fa yëngël lu demee nonu kon nu itam bu nu sëñ Mor jetti gardo ak xewal gi nga xamni ci señ ko jëlé indil nuko warna no taxaw ba barabam yi ak makanam yi num wara mel rek mu melni ni ak jamono tayit nak doonul yan bunu dis buñ ci amé pas-pas du yan bunu dis man de ma ngi soñi sa bop di soñi ñi nga xamni man lañ doxale seen digënté ak sëñ daru Seynabu ma ngi len di soñi ta xamna naa li mu wértu amu ci kenn ko xay di nga ma man ci li tax may soñé du am ci ñom tayit fofu ma nek la bëgg ñëpp nek fi waxtu xamé ni digël bayiko na fi mu war a ci nun ñu déggal leen ko kenn ku ne na ci tek bakanam nako jaral lam am mu jaay ko def ci na jaral mu fab ak buum dem tax ni mat ñew jaay def ci waye lenn ndigal lu fi ñew di neen dal nun ñepp nan mas ci fasiyene lolu bañam xam naa nag du ma guddal foofu laay yem ba euh, beneen ndax euh, ñi ko séq dafa xaw a bari kon mën nañoo tënk foofu rek yal na nu yàlla defal jàmm. ñu fàttali ne yéen a ngi fii ci ëttub Serigne Modou Diatty njaboot Serigne Modou Diatty gépp ñoo teew di waxtaane ngir am ngërëmu Serigne Touba ak am ngërëmu Serigne Modou Diatty dañuy jox kàddu gi Serigne Mouhamadane Diouf Serigne Mouhamadane Diouf moom Serigne Darou Seynabou moom la ñuy jox kàddu gi Serigne Mouhamadane bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di balwaaq noo ngi leen di balwaaq noo ngi ñaan sama borom boole ñu jégal ci uh, màggu borom guddigi gi barke borom Touba barke borom Daaru jërë ngeen a jëf kon ci gàttal rek ñi yàlla àtte may seen jëwriñ ci yoon wi ñu ko kilifa yi waxee rek noonu la ko waxe mooy takku de ca kanam ca kanam ca kanam ndax sëñ Daaru mi nu meññ kere bi sëñ moo daw Balla demee bayti ah yàlla àtte mu teew ci suba bu ñu xëyee donga yu mag yi wër ko ne ko da donga yi de tey yaa ci mag loo xam mun leen ca kanam rek man awuma dellu ginnaaw daanaa joxe yaari ëddee tey lay doon ndax ku toog ci lalub sëñ Touba bi dinaa la jox addiya ngir tudde gi ñu ma tudde sëñ Touba waaye ku toog ci lalub borom Daaru Muxti bi yow sa sa sama sëriñ sama njaboot gi it sëñ Moussa seenub sëriñ laa doon joxe yett tey kon nuyut noonu rek ndax wax moom neex gi te ko amul benn njariñ ndax looy jëf ñeel la kon ci gàttal sëñ Modou moom sëñ Touba sëñ liggéey baa ngi noonu fu ngeen mag gisee na ngeen ma doolee soññi ndax maa ngi ko tàmbalee sëñ Touba Diouf ak sëñ Baara Cissé newoon naa ko sëñ baara fu ñu fo fu sëñ Tuubaa soññeete rek njaboot gaa ngi noonu nii woo baree daleel ci man ñëpp nga soññi leen kon lépp loo xam ñëpp ku yàlla dogal nga aju ci man soññi naa sa bopp soññi naa la ci ndigalul kilifa daje fii buñ ci kenn jiitu buñ ci kenn man bu ñu nit ci yërëm itam lépp luñ ci def yàlla ci yàlla wàcce barki te da ngeen solo seen barki borom Touba. chef Cheikh Mouhamadane kàddu yi gàtt na am na solo ñoo ngi lay sant bu baax a baax dañuy jox kàddu gi nag koo xam ni moom la ñuy woowe ambassadeur Serigne Darou Seynabou ca Darou Moxti mooy sëriñ Bàcc Diouf sëriñ Bàcc Diouf moom sëriñ daaru Seynabou di ambassadeur sëriñ daaru waaye bu sëriñ Serigne Modou Diatt ca daaru Moxti moom la ñuy jox kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaare di leen balaax te di leen balaax di ñaan yàlla mbool ñu jégal di jital ci nuyu bi ak siar bi serigne Mountakha basiru mi fi tok toogaayu serigne Touba Khadim Rasoul di ñaan mu yag fi lol te wér ba liggey bi mu sumbal wajurom wa ak maam ñu bax ja yalla bayyi ko fi kattanal ko bam agal ko ko bëgg agalé àggale and ko ak mom waye non la ni siaré tam serigne habas Mbacké mom borom dar muhti diko ñaan mu yag fi lol te wér ba liggey bi mu sumbu suma ko waa juróom bu baax wa ak mbokk yëpp nu mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale dañu ànd ko ak moom. ndax euh, sëriñ Mourou wax na ko sëriñ Cheikh wax na ko Baye sëriñ wax ko sëriñ daan wax ko kon loolu moom daanaka dañoo mënta ñàkk a yëkkati suñu kàddu rek waaye li ñëpp wax rek moom lañu wax. kon noo ngi leen nuyu bu baax yéen ñi nga xam ni nooy seen jëwriñ ci kër sëñ Mor Diouf Diatty di seen jëwriñ ci kër sëñ Darou Seynabou ak ñi nga xamante ni. sëriñ Habib Diouf sama rakk ci topp ci man te yàlla dogal mu ne ci yitte ba teewul jox ma ndigal naa ko saññaaleel ak njabootam yéen ñëpp nan maase ci tënku ci lii nga xay ni moom la sëriñ bi bëgg ndax lii mënu bëggal di mooy suñu njëriñu tey mooy suñu njëriñu ëllëg mu ànd nekk benn di fabandoo di tegandoo ndax foo dem ci réew mi loolaa nga fa kon nag ndegam Touba ca kanam ma nga Touba takku defar daaru musti manga nga daaru musti kon nag takku defar daaru ak li ci aju war na fee taxaw te foofi demee taalibe yi dong nga koy def kon nag maa ngi jox ndigal daal képp koo xam ne maa si jëwriñ lépp loo xamante ni jëwriñ yii ñu tudd léegi muy sëriñ mu Awa Balla Diouf ak waajuram wii mu àndal di sëñ Moustapha Saliou noo ngi koy noo ngi leen di jox ndigal képp ko ñu gis ñoom mbaa nga gis seen ndaw loo am lu ñu la laaj na ko joxe donte dañoo tobbi aw sas itam sas woowee ñu tobbi na nga fexe ba bu la ci kenn man man kat loolu moom man loolu laa xam kon nag li ma xamee te bëgg ko itam mooy ñun ñëpp itam nu maase ci rek euh, fu jëwriñ yi taxawee ni nangam nan fexe ba lañ wax ñu amee ko nan ko bëggee loola moo ni may li nu bëgg ndax loola ñuy laaj la muy tuuti la nga ci def la muy tuuti di ko xeeb bu ko sa morom defee sa morom def ko rek li nu am dana ko bëgg noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waxu ko dañuy jox kàddu gi nag sëriñ Serigne euh, euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha Diouf. moom suñu baay sëriñ alhaaji na Diouf sëriñ safaa yow la ñuy jox kàddu gi mu wax nag si turu suñu baay sëriñ alhaaji Thierno Diouf waaye nag bu leen fàttali ni sëriñ alhaaji Thierno Diouf moom tamit moo njëkk a jiite communauté rurale bu Mboro kon sëriñ Daaru Seyna bu yàgg naa am ay ndam waaye sëriñ Modou jat yàgg naa am ay ndaw si sawu jant jërëjëf saabika usuriyataha min seytaani rajim rabbi ansabika min amasati sayatin ansabika rabbi an yahdurun asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di di bal ak àq bal ak ñaan suñu borom bo jéggal di jottali ay kàddu ci ndigal li nga xamni ni suñu kilifa yu tedd ni suñu kanam dañ ko joxé moy na and nek ben leggel suñu murid jott suñu mam maa ngi soñu bép talibé ak képp ku ma bokal Thierno ibrahim leggey bu bi fuñ la fekk muy jëwriñ yi nga xamni mom lañ jox ndigal muy suñu Modou awo bal ak suñu Moustapha ju suñu rak lañ la ca wax nang ko jëfé and nan ca joxé nan ci ndigal salam كما له الشكر بخير خايا وصلواته بخير عددي مع سلامي على محمد وآله وسوى بعض فإنني رسل جل العمر قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا بكي جلدي جنا بن سنتي الله سبحانه وتبارك وتعالى جلدي شنتي بعلي بآله وسعى بصلاة وسلام ندولي سنتي cheikhuna ahmad al xadim kaana lahu bi karamil baaxil xadim gannaaw loolu lépp nag ñu ngi jiite suñu nuyu suñu siyaar cheikh mohamadul muntaqa yàlla suñu borom doole yàggal te doole ko defal jàmm ba lim naa leen lislaam lépp mu taxaw ko te ànd ko moom sama bopp baax ñii xam ñoom lañ jiite muy cheikh cheikh moustapha al karim ak cheikh mohamadou aw balla juhmee ñi xam ñoom lañ def jëwriñu kër gi képp koo xam ne dem na fi dem na fi koo xamante ne man maa nekk jëwriñ ci ci kër Serigne Mbacké Sidy gi loola maanaam lañ ñoom lañ la laaj na nga ko tege bu dee dërëm na sell bu dee ñaar fukki junni na sell képp koo joxe nga loo xam ne sellul it du la jëriñ tey kon néew bari daal la ngay joxe na yàlla rek tax te na sell mooy tax mu jëriñ la bu waaye joxe loo xam ne wala da nax alal nit ba jël ko it bu ëllëgee ab coono lay juróon néew bari daal na yàlla rek rek tax na sell na ko segg ba mu sell ndax mu mën a tabax sa kër ëllëg loolu nag maa ngi koy dink sama bopp di ci laabire kep ko xamane ke jeewrinam ci ci keur gi bi ci dess seigne khadim yi xanti moy mo fi nekkal mo mo mo fi nek seigne Thierno bu rahimahullah rahmatan wasia mom itam li ma wax rek mom la wax kep ko xam ñaari jëwri nii dem nañ ci kenn ci ak njabotam la luñ ko teggo lam cey def mu bari mu néew na sel na yalla rek rek rek rek tax ngir bo ligi man ko jariñ loolu mang koy denk sama bop te diko fatali kep ko xamne ko na jeewrinam ci yoon wii maa ngi ñaan nag borom saxal fi jàmm saxal fi wér saxal xéewal ubbi bunti xéewali bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi daal wax ne li ngeen may jox kenn ku nekk damay wut sa kees jël ceeb caabi ji teg bu ëllëgee ma jox la caabi nii la ubbil kees gi loo ca fekk yow su fekke da nga ubi kess fekk mu fess del ya ko fa def boo fekkul dara it yaa ko def kon buñ nax buñ nax suñu mom man amila saalihan fa li nafsihi wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bisalam lil abid yàlla du togn kenn du togn ben jam du togn fekk sa sa jëf ju bax mu wañi lako wala fekk lo loo lon ci ñam mu yàlla ko dede wa ma rabbuka bisalam lil abid yal na yàlla defal dégg ak topp te saxal ñu ci bëggam suñu borom saxal ñu ci ak bëggam te te wattandiku lépp loo xamante ne nekkul bëggam rek suñu borom musul ñu ci loole zahiran wa batin bi barakati cheikhina ahmad al xadim kaana lahu bi karamahi baaxil xadim jërë ngeen jëf di leen ziar bu baax di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbakke muy xalifa général de Mouride di ci teg sëriñ Seexuna Abdul Ahad mi suñu wasila di ci teg suñu kilifa yu baax yi nekk suñu kanam di sof suñu soñé ci seenub soñé waye di ci jital kep ko xamni ci si ci kër sëñ Mor Diouf jatti nga bok wala ngay ab julit bo xam ci yaangi dégg sama kat gi ñu gëna gorgol ci ndigal suñu borom yi ñu fas gorgol bu baax ci suñu ndigal suñu borom yi fépp fu way nekk ta jàkka nekk fa jégué la nga fexé ba bu la ci kenn man ñepp lepp lo xamni ci si ndigalu sëriñ Touba lu ëgsi ci yow lo ci man nga def ko ci ndigal li nga xamni ci si dañoo ay jëwrin tak ko ci seen kanam jëwriñ yi fuñ ku ñëw ci yow loo ci man nga def ko te yàlla rek tax te jëwriñ yi itam ñu bàyyi xel bu baax taalibe bu joxe lim joxe dañ ko ko fonkal te buñ ko ko xeebal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.